وكوني الذي جعلني لا خلق ديم خدرتي وجعلني جل بيوسف السلام عليكم ورحمة الله nuyu bu baax a mbokk mi wax mooy Abdou Aziz Mbacke doom Cheikh Mahamadan Mbacke nekk fii ci daara yi Serigne Saliou ñu tuddee ko Masalikul Jinaan muy daare joo xam ne ñi ngi ko sos ci atum 2006 ba tey fii ñu nekk nii di 2023 mu toll ci fukki at ak juróom-ñaar ci daara joo xam ne muy jële aw doxinam ci na sëriñ Saliou doon doxee ci ay daaram te ki ko sas di Serigne Serigne Saliou Mbacke moom sëriñ Cheikh Assou Fall moom sëriñ Basirou muy doom sëriñ seex Assou Fall joo xam ne sëriñ Saliou moo ko yar suñ boroom di dox ay tegtal muy dox topp ay tegtalam ba ñëw fii ci kawoon fi nga xam ne am na fi ay mbokk yoo xam ne ci wàllu néegu ndeyam mu ñëw fi samp fi daara ji daari ji nag booba tey mu ngi toll ci fukki at ak juróom-ñaar waaye ni ma la ko waxee sànq mi ngi topp doxin wa nga xam ne Serigne Saliou moom la doon doxalee ay daaram mooy kenn du ci yalwaani kenn du ci génn di dem feneen ak feneen képp ku ci tawat sëñ bee jël propre responsabilité am def def ci la ca war lépp luy dund sëñ bee jël la nga xam ne moom la ko suñ boroom di jox mu mu bokk kook ndongo yi toog di xaar suñ borom. amul benn koo xam ne wala lenn loo xam ne ñu ngi koy def loo xam ne dañ naan lii ressource la bu jugee fenn di ñëw ci daara ji kon daara ji mën nañ ne bi mu nekkee bi suñ boro bi bi bi yonent bi ne man kaana laahu kaana laahu lahu daara ji yaakaar naa noonu lay doxee ndax euh, daara joo xam ne plus de mën naa ne ñi fi nekk nii ci ci kawoon bokkut ak ñi nekk Touba. moo waral mu dem foofu ca Touba tuddee ko fatul fata am ñoo xam ne fa lañ féete boo boo calculer ñi fi nekk presque di nga génn ci ay cent cinquante et quelque ci li nga xam ne moom lañ ko mën a xayma te ñooñu ñëpp ci ron ci ronam lañ nekk. ci ci ci kilifteefam lañ nekk ci euh, ci protection am lañ nekk kon daara ji mi ngi nii ak lépp loo xam ne tamit daara mi ngi koy soxlawoo da ci xar tànk tubéyam jël lépp loo xam ne am na ko ci loo xam ne mi ngi koy def ci loo xam ne euh, ci fu mu ko ak fu mu ko mën a jëlee dina ko jël def ko ci daara ji waaye ci propre ay moyens ni boppam la koy defee amul kenn koo xam ne mi ngi fiy ñëw yaa mën na taxaw ne mooy def lii ci daara ji wala mooy taxawee lii ci daara ji même jàngalekat yi fi nekk sax moom moo leen jëloon en charge di leen fayal boppam kon defe naa ne ku fukki at ak juróom-ñaar ku ko def loolu sa sa sa maam dina la ca wallu ca loole loole noonu bëri na ñu am yéene na di ci def waaye xëy na suñu borom moo dogal seen seen jëf war fee tàbbi wala seen liggéey seen euh, seen alal war fee tàbbi ndax du ba ngay bëgg a def rek def suñu borom mooy dogal nga bëgg a def mu maaseeg fa nga bëgg jëm mu dogal loolu jëf ca mën a antu kon daara ji daal niir foofu la démarré fii la toll fi fi toll nii nee na ñu ngi sant yàlla bu baax di ci Seydina Mohamed nee di sant waa Leeral TV initiative bi ñu jël di nemmeeku li fi mag ñi bàyyi woon ak jaar jaaru nit ñu baax ñi. nee na léeg-léeg sax mu faral di leen déglu. di waxtaan yu am solo. di jaar jaar yu am solo. nee na wax dëgg fa yàlla seen la bu am njariñ. boo xam ne ku koy déglu. doo réer. te di nga gindeeku. kon yàlla na yàlla barkeel seen bi. yaatal ko lool. foo toll ci àdduna. di ko mën a seetaan. nee na fii ñu fi ñu ñëw nag mooy kawoon ku tëdd kawoon ku tudd Saloum ndax fii yaakaar na ne fii ñu toog moo nekkoon capitalu Saloum Saloum yëpp ki nga xam ne moo ko daan jiite mooy buur ba euh, ñu koy wax buur Saloum ci guy gi lañ ko daan falee. lañ ko daan falee. kon am na aspect historique. kon am na aspect historique. ba tax guy gi sax. ba tax guy gi sax. ñu classé ko. ñu classé ñu def ko patrimoine mondial. ñu boole ko ci patrimoine yi gën a rëy. ci àdduna bi. ñëpp di fi ñëw. di ko xool si. ndax histoire ndax histoire am. ndax cosaanam. ndax loo xam ne am na ay siècle. ay siècle siècle. ne kon loolu yàgg la. ñëpp fi ñëw. moo tax ñun ñu ñu ne fi ñëw. ñun nag suñu boroom suñu borom. dafa dajeeg taw dafa ñu indi ñu fii ñu indi ndax am na feneen foo xam ne. ndax am na feneen foo xam eh, doxal fa liggéey bi doxal waaye nag benn bis. waaye nag daa tëdd guddi. guy gii feeñu ko. ci meneen réew la boobu nee sax xamul ndax ci meneen réew la nekkoon. mu foog ne mu foog sax ci ci réew moomu la. mu làmb ko fa. mu làmb ko fa. ba mat weer ba mat weer. gisuma ko ko fa. ci la ñibbisee nee na ci la fii. doxaat na ay at. nee na doxaat na ay at. di waxtaan ak euh, kenn ci mbokk yi. di waxtaan ak kenn ci mbokk yi. ba mu tudd tuddal ko guy gii. bi mu ko tuddee. ko tuddee. ak mandarga yi ma ci jox. ko ci jox. mu niru ko. lañ ko wanoon. nee na ci la sol ay dàllam ñëw di ko gëstu nee na bi mu dikkee itam dañ ko ko wane woon rek noonu la ko fekkee dara soppeeku ci nee na mu doon jógee dëkkam di ñëw fii di fi def ay ñaan ba benn bis ay mbir dikkal ko yu wane daal daa war a ñëw fii nekk fii Ah, mu dem ci ki fi nekkoon maire. mu dem ci ki fi nekkoon maire. Eh, ñaan ko barab. ñaan ko barab. mu laaj fan la ko bëggee. mu laaj ko fan la ko bëggee. mu ne ko man amul choix. mu ne ko moom amul choix. fu ñu ko jox ci kawoon rek. fu ko jox ci kawoon rek. baax na na. mu ne ko léegi boo toogee mu ne ko altine nga ñëwaat. mu ne ko boo toogee fii ak nga ñëwaat. ne bi mu ñëwee. mu jox ko kayitu mu jox ko kayitu këram. boobu it xamul fan laa jëm. nee na boobu it fa mu jëm. neen bi mu woowee géomètre bi mu indiwaat ko fii kon xëy na loolu sama cër la yaakaar si cëram la moom. nee na ba muy tànn tamit tànnul woon fii këwoon rek la waxoon waaye daana fi ñëw nag ay yoon yu bari di ñëw ci guy di def ay ñaan delluwaat nee na ba muy ñaan tamit nee na maire bi xamut ci loolu dara waaye fii la koy indi man naa wax ni sax moo fi njëkk a dëkk moo njëkk a dëkk ci guy gi dëkki nu ko jege jege goo xam ne lu ko jiit woon xëy na loolu amutoon jamono yooyu nag. jamono yooyu nag. ku xam nitu taax. nee na ci ku xam nitu taax. ak barab bi ni mu meloon. xawoon naa métti lool. xawoon naa métti lool. xawoon naa xawoon naa xawoon naa raglu. xawoon naa raglu. ci bët ci bët. raglu itam. raglu tamit ci dëkkukaay. ci dëkkukaay. waaye ànd ak ndimbalu suñu borom. waaye ak ndimbalu suñu borom. teew dëkk na teew dëkk na. te la ma doon ragal lépp. te la ma doon ragal lépp. léegi lépp yàlla daxal na ko. ba tey jii mu nekk barab bu ñëpp yi dëkk. ñëpp di ko xeemee. di fi ñëw. yéen ñu ngi koy sante suñu borom. nee na daara ji nag waxee. comme ni ko si Abdou Aziz waxee. noonu la deme woon. yàlla dogal na. nee na laaj ñu kenn dara. lu ñu yàlla war sëgale. loolu la ñu bokk ak xale yi. waaye mel na ni itam. bari na daara yoo xam ne. ña ngi cay fay xaalis bu dul jeex. Eh, te ñeewu ma te ñeewu leen. te condition yi xale yi nekkee. nee na loolu ndimbalu suñu borom la. nee na eh, bi ñu xamee tamit. dem na ba. dëkkuwaay di ma jege. dëkkuwaay di ko jege. te ñoom nañ leen yaree woon. te ñoom nañ leen yaree woon. ne sëñ Saalu daan yaree. daay sori taax. daal ah, jum samp junne. daal jum samp junne. tey dem ba daan dëkk ba. ay kilomètres. doo faa samp daal. xay na bi ñu ñëw fii. noonu la xawoon a mel. mujj na. dëkkuwaay jege leen. ba ñu gis ne. ñu bëgg ci xale yi. li ñu bëgg ci xale yi. ak nekk ñu dëkk bi. ak nekk ñu dëkk bi. dafa tàmbalee jafe. loolu moo tax. am barab boo xam ne. méngoo na ak nañ ko bëggee. nekk foofu ca Touba. ñu koy wax Fatul Fata. muy barab boo xam ne. Serigne Mountakha. moo ko lotissé. jox ñu ko. yàlla dogal itam. moom moo fa njëkk a dëkk. mais ba mu demee gis barab ba. gis mu sori dëkkuwaay. mu xaymaam nemmeeku ci melokaanam ca la fa demee def fa daara ja jël xale yëpp daanaka yóbbu foofu euh, macha allah macha allah ñu ngi sant yàlla ñu ngi sant yàlla xëy na am na loo xam ne ne xëy na am na loo xam boo amul tawfeex amoo courage amoo courage doo ko mën doo ko mën waaye nag yàlla jox nañu courage jox nañu tawfeex itam bépp mbir lu mu raglu raglu rek ñeme nañ koo sànjaafu yaakaar ndimbalu yàlla ci loolu te ndimbalu yàlla tamit ñu ngi ànd ak ñun saa su ne ñun ñu ngi sant bu baax wasalaamaaleykum wa rahmatullah بي وكوني الذي جعلني لا yi moom du koor gi rek ndax bis bii di ajuma ku dul mbokk taalibe yi fii ñëw di ko def moom moo koy def ci poosu boppam waaw chaque ajuma jot na togg ay berne toggal ko tuutànki waaw loolu moom du koor gi rek waaw togg gi nag moom ah, li ko indi mooy sëriñ bi bi mu ko bëggee xam ne ndongo yaa ngi fi ay gone lañ ñu toll nii ndongo yi sax da leen a wàññi genn wàll gi leen yóbbu Touba ndax dafa am ñaari daal waaye ëppoon nañ ni bon fi ndongo yi gënoon nañoo bari nii sëriñ bi bëggoon daal euh, comme ay gone lañ te dañu bëgg di bëgg di muy xeloo ndawal ndax ndawal daa bokk ci yaramu doomu aadama ndawal da cee bokk mu mel ni ay tuut tànk lañu bàyyi seen seeni i waajur teg ci loxo sëriñ bi sëriñ bi yoo lañ seen lépp. Euh, mu bëggoon daal ñu bañ a ñu bañ ñu bañ a manqué ndawal seen yaram bañ a manqué ndawal mu xalaatoon nag euh, koo xam ne dinañ ko mën a defal bu dee weer bu jot sax mu defal benn ñu mën a lekk ndawal ba yëg ko euh, mu bëggoon loolu doon ko ñaan suñu borom fa yàlla dogal mu mu dajeeg sama jëmm ji jazamana lillahi bi tawxidi wa bil xibaar